maa gën a xam jëmm ji génn àdduna tey kii konk ndax 1950 la sama baay demoon Fuuta indewaale ko foofa la jàngee sama yaay ñu jox ko muy yaay taalibeem ñu jógee fa dem Maroc waaye ba ma ko fekkee Maroc la sama yaay daan sonn ci moom bi ko def fay na ma ko fay na xorom si naar bi li ma gën a yéem ci moom mooy jiidi mbay tegoon na ko loxo lool bu génnee balaa dugg ci otom may ay millions fu iyaan dugg mu ne na iyaan wàcc ñëw dugg sama oto te amutoon dara man la Serigne Ahmad iyaan si yónni ci Jili Mbay mu ne ko kii boo defu ndànk xamul fu mu dëkk mu ne xaw ma ko woon maanaam euh, ngor googu jege autorité man lu nekk mu war nangam defoo ko loolu dafa raar gisuma woon muy tarbiyu borom alal gisuma woon muy tarbiyu autorité ñaareel ba li ma gën a neex ci moom dañoo bokk schéma yoon mooy gëmul tariqa lépp l'islam la gëm ànd nañ ci Serigne euh, Sidi Makhtar mu ne ko eh, Iyane mu ne ah, mu ne ko saa yoo ma téléphoné ne ma naanal ma naan ñu ànd ci Serigne Abdou Aziz Al Amin mu wax ko ko ñu ànd ba ci eh, Serigne Babacar Sy Mansour bii moom it loolu la ko wax waaye li xew léegi jikko yu bon yi ci nekk jaamu borom alal sëriñ bu ci mbooloo topp nga jël ko jaay ko ut récépissé ne président daara bi boo ko defee yàlla def lay déconnecté balañ ko xam mooy taal sa ordinateur wala wala guddi jot bo làmb boo bo boo boo kii do do do do am nañ dellu ci yàlla sëriñ si nañ bàyyi politique di dellu ci yàlla yàlla la ñu xamee woon kaamil loolu la ñu woon caam am iyaan ngor gi ma gisoon ci moom ngoon gu raar la maa ngi sant yàlla ak sama baay bi nga xam ne moo gannaaw yàlla ku njëkk ci ku dem ci ku caam fekk si la la fa nekk sama baay moo ko ci def mooy xalifatul haaji Mouhamed Niass kon tey gis nga eh, atmosphère bi gis nga dafa mel ni mi ngi jooy